Gracias.

Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci à la presse nationale et internationale qui est là. à la presse nationale et internationale qui est là présente pour couvrir cette, euh, cette déclaration de presse. Juste vous informer que cette déclaration de presse se fera en deux temps. D'abord, une partie, une première partie en Wolof, également après tout, après, tout juste après une deuxième partie en français pour pouvoir s'adresser à la communauté africaine et internationale qui suit actuellement cette déclaration de presse. Et éventuellement, à à la fin de la deuxième partie, si vous avez des questions, nous pouvons les recenser et voir comment organiser ça. Merci beaucoup. On va, on va démarrer. S'il vous plaît, votre téléphone en mode silencieux. mbokk yi asalaamualeykum ñi ngi nuyu mbokki Sénégal yépp ak uh, fu waay mën a féete rek muy ñi ne ci biir réew mi wala ñi nekk uh, bitim réew di nuyu ñi fi teew ñëpp nag di ci jiital uh, kilifa yi nga xam ne ñu ñu ràññee lañu ci politique ñuy kilifa parti bi euh, docteur Diallo Diop euh, Madieye Mbodj Adja Yacine Fall ak suñu doyen Alla Kane ak mboolem seen militant ak militante yi teew si di nuyu mbokki presse bi nga xam ne ñoo ñëw couvrir événement bi gën ñoo yombalal jokkoo bi ak àdduna yëpp dañoo woote woon waxtaan wi muy euh, bi njëkk ci suñuy waxtaan gannaaw bi ñu génnee ci élection législative yi bu ma waxee bu njëkk suñuy waxtaan nag mooy ñun en tant que Pastef jëmm yoo xam ne day représenter Pastef parce que def nañ fi ay sorties yoo xam ne ñoo ngi ko seq ak suñu naataangoo yi ñu bokkal coalition yewi Askan Wi wala ñu sekk ko ak ñi nga xam ne mooy intercoalition yewi Askan Wi ak Wallu tey nag dañ fee taxawee baatu parti politique bi ñu bokk muy Pastef les Patriotes war a waxtaan tuuti ak askan wi doore waxtaan wi ci jaajëfal askanu Sénégal ci lim ñu may ci jongante politique yi ñu génn di élection législative yi li ñu askan wi may ñun mënuñu koo natt parce que li génn ci urne yi mënu koo natt tuuti na trop pour natt li nga xam ne moom lañu askanu senegal may li ñu askanu Sénégal may ma nga doore ca pré-campagne ba foofu la doore waaye dafa wëy ba ci campagne bi surtout ndax ku suivre campagne électorale bi weesu rek di nga xam ne la askan wi may yeewi askan wi gëw mu ni am na keneen kum ko may ci wàllu mobilisation ci fépp ñu teew mobilisation yoo xam ne ay junni junni junni nit la tàmm ci kenn koo xam ne jox nañ la ñaari dërëm pour nga génn ñëw tertu leader yi nga génn ñëw li ci gënoon a yéeme mooy topp ab caravane sur trois kilomètres quatre kilomètres cinq kilomètres di daw léeg nga xaar caravane ba deux heures du matin trois heures du matin loolu ñun mënuñu ko xayma mënuñu koo natt amul prix ci ñun ndax politique nak Senegal, fim tol toll nii ñaar la ku dem jukki alalu rew mi randal ci ay milliards miliar. milliards wër di fay ay nit ak di len yeb ci ay car pour ñu dajel la ay mbolo ak ko xamne amo ludul sa kàddu amo ludul sa programme ak sa gis-gis te ay junne junni nit waxuma la sax dila top waaye di dajale seen alal di joxe pour nga mun a dox ñaar yooyu moo fi am Sénégal kon ñun ñiy féete ci ñaareelu pàcc bi gannaaw bu ñu sante yàlla dellu santaat ko ndax it du suñu mérite buñ ci buñ ci amee mérite as tuut la ndax nit def na lu ëpp la ñu def ñun ci politique te yàlla mayu ko lii kon dañuy dellu sant ci yàlla gërëm askanu senegal bu baakha baakha baax ci kolouté gogou wayé décrypter message bi nga xamné ne jangat ba bi nga xamné ne lalu ci Pas parce que du rek ñu ngi lay top nga naan ma fi nek dedet lan moo nit di la top lan moo nit bay yitteem di daw sa gannaaw lan moo nit dajale alalam yalla xam na ni am na ay soxla yu jàmp yu mu ko mënoon dugal mu ñëw am lu mu ci comp ne mu ngi koy dugal ci li ngay li ngeen li ngeen xeex loolu mu ngi am benn tur benn baat lañ ko mën a nattee mooy yaakaar yaakaar gi nga xam ne askanu Sénégal am na ko ci ñun du suñu jëmm du suñu personnalité waaye projet bi ñu leen gaar bi ñu leen présenté ci juróom ñaari at yi ñu weesu moo tax askanu Sénégal googu la ca bëri wala la ca ëpp laa gëm daa di am yaakaar googu ba di ko manifester noonu mu koy manifester ñu dellu wax liñ doon wax saa su ne bu soobee yàlla askanu Sénégal googu du mu sam gàcce ci ñun yaakaar googu du mus a yàkke yaakaar googu du mus a tas ndax ñun contrat social lañu waxanteeg askan wi mooy dañoo fasante kóllëre ak askan wi daadi di tëddal tëddal benn charte charte boobu nag kenn ku ne am na lu la ci war la ñu ci war ñun mooy lii ñuy def saa su ne féete ci côté askan wi di ko xeexal di ko leeral liñ ko nëbb di ko wax lu yàq réew mi di ko wax lan moo tere sénégalais tey mun a dund dund gu naat ci jamono joo xam ne réew mi naat na loolu nag jàpp naa ni ñun suñu wàll ci contrat boobu ñu ngi koy dox ragaluñu ci ku ñu dóor ragaluñu ku ñu saaga ragaluñu ku ñu pexeel ragaluñu ku ñu sosal wàllu askan wi nag mooy moomit mu taxawe fi mu war a taxawe ndax benn nit du soppim réew benn groupe nit du soppim réew réew donte foo gis ay nit daje il faut mu am njiit il faut mu am ñuy jiite mbir mi il faut mu am ñuy xalaat di nas di teg waaye pour mu sotti il faut ñu dem ba li ëpp ci askan wi ndax mënuñoo dem ba dajale ñépp nag loolu amul yàlla moo ñu bind ñun ñëpp te pourtant am na ñu ne gëmuñu yàlla kon kenn mënul feexe ba ñëpp ànd ak yow waaye bu ñu demee ba li ëpp ci askan wi ànd askan wi am yéeg-yéeg bii ñu am ñaar yooyu daje ndax réew lu koy defar mooy leader yu baax waaye nag wéeru ci askan wu baax leader yu gëm réew mi waaye sësu ci askan wu gëm réew mi

waaye ñaar moo tax defuñu ko benn mooy Sénégal jàmm ci xaj ñaar mooy xeex danga koy xeex si ño ca ba ñoree xeex danga koy xeex ca ba ñoree waaye buñ la naxee ba dugal la ci xeex te ñoragul danga ñàkk xeex ba junju doy na boroom xel li tax nous ñu gën a woote waxtaan wi mooy ñun jàpp nañ ni li am am na il faut ñu wéyee liggéey bi daje woon nañu songu élection locale yàlla may ñu ci loo xam ne na suñu njort ñu daje songu élection législative ñoom ñu def seeni tappale ba li a fës ci suñu liste ñu fexe ba dàq ko ci élection bi teewul wag nañu suñuy loxo wër nañu Sénégal campagne nañu duma nañu leen ñu dellusiwaat siwaat foqati victoire boobu ci anam boo xam ne ñëpp seetaan nañ ko ñu ne muñ ci waajal xeex la bokk du ragal ndax ku ñu xam-xam ni ragaluñ bu ragal di am fële lañ koy seeti lan moo ñu dajale ñun waa coalition Yewwi Askan ak intercoalition Yewwi ak bëgg Sénégalais am solo parce que ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd teg ko ci ay charte charte yooyu nag nit ñooñu ak moom mooy arbitre moo tax saa suñu mës a bokkee ci kuréel laata ñuy sori dañuy exiger kuréel gi ñu tëral ko ci ay anam yoo xam ne aw kayit lañ koy bind mu leer nañ lan moo ñu boole woon ñun waaye wi Askan Wi dañu wax ni boo génnee préambule beeg yi ñu wax ak li taxoon ñu daje. dañu génnewoon ñetti étape yu am solo bu njëkk bi mooy élection locale li ñu waxoon ci élection locale yi mooy dañuy présente benn list dong ñun waa Yewwi Askan Wi ma fàttali ni balaa ñuy dugg ci Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi dañ ko yaataloon waxtaan ak ñëpp yéen ñëpp seetaanoon ngeen jamono jooju.

du présenter wala du jàppale benen liste budul liste coalition yewi Askan bi que parti bu nek nak dina def kem katanam pour ñu gagner élection locale yooyu lolu moy li ñu waxante won ci élection locale ñu woy ba légui ne lan mo ñu teunk ci élection législative ñu ne bu ñu ci élection législative dinañu wéyale dynamique unitaire bi mooy coalition bi dinañ ko continuer daadi fexe ba am benn liste donc nag bu ñuy demee ci élection législative yi te bu ñu yàlla mayee ñu gagné dinañu defaraat assemblée nationale delloo waat réewum yoon muy état de droit li nga xam ne mooy liberté yi mooy sañ-sañu kenn ku ne ci li yoon maye ak lépp li nga xam ne ay loi yoo xam ne wote woon nañ ko ngir tënk Sénégalais yi dinañ ko génne ci senegal waaye dinañu wote aussi ay luwaa yoo xam ne lim nañ ci lu bëree bëri loo xam ne xajul fii ci waxtaan bi ñu ne lii moo ñu tënkoon ci élection législative yi ñu dem ba ci biir mu am lu ci coalition walu bi nga xam ñu won ci élection locale yi ay contact am waxtaan am ñu far mujj nak ni li ñu ci élection locale yi dañu bëgg dabu ci élection législative andi intercoalition yewi walu waye ma ngi dess ba légui ci askan wi ñu pour élection présidentielle dafa am solo parce que accord yi may wax yépp nag gannaaw conférence de presse bi parce que lu coalition Yewwi Askan Wi décidé woon la bu yàgg waaye campagne bi tënkoon ñu lii lépp dinañ ko rendre public ba sénégalais bu nekk xam lan moo ñu tënk parce que ay gor suñuy daje ci politique bay def accord dañu war a am seede sa seede gi mooy askan wi ba ëllëg ku wor wala nga def naka sudul askan wi xamni ah, la waxante def ñu kon pour élection présidentielle bi dañuy bayyi coalition bi continuer exister waaye téréwul kenn ku nekk am sañ-sañ ne man que dama bëgg nekk candidat élection présidentielle parce que xam nga élection bu nekk réalité élection locale et élection législative élection ou raw Tassare la opposition bi baaxu ci élection présidentielle nak. L'année wax ni c'est le rendez-vous d'un homme évidemment accompagné par une équipe dajele entre ap ab nit bo ap ab écurie moko ko ngemb sol ko ko yor ak askan wi te daje gi li ko lal programme bi mi présenté askan wi motax élection bob bokul ak ñaari jitu motax tax ñu ne bu dee ñëpp nañu dajé nañu waxtaan ne ah ñun de yeewi askan wi ben candidat dong lañu bëgg am batay baxna ñu nanguko waye buñu démé ci élection présidentielle Massamba ne dama bëgg a candidat Mademba ne dama bëgg a candidat amna sañ-sañ wi waye lolu tasul coalition bi coalition bi dañ koy bàyyi mu continuer di nek. ñu de boole ci suñu doole nag pour mën superviser ensemble élection bi parce que xam ngeen ni élection lu jafe-jafe gérer la ci benn kuréel politique donc ndax am plus de 15 000 bureaux de vote ci Sénégal ak yeneen ak yeneen waxuma la nag fichier électoral bi euh, inscription ak leneen ak leneen ñu ne kon dañuy bàyyi cadre bi mu doon benn cadre unitaire boo xam ne ñooy bokk saytu élection bi ba njuuj njaaj du ci am ñaareel bi dina am loo xam ne dañ koy tënk dañ koy tënk ci programme minimal mooy mu am ay poñ yoo xam ne yu ama am solo la yu ñuy bokk ñun ñëpp nangu ni ku fi yàlla tànn rek ci ñun mën nga am leneen ak leneen ci sa programme lu ci yokk waaye poñ yi mënul ñàkk poñ yi mënul ñàkk ci réforme ci wàllu institution ci wàllu économie ci wàllu social yoo xam ne dañ koy tënk bu dee loolu am na nag muy kayit bu dëgër boo xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp te askan wi seede ko lañ ciy teg nag nii bu dee kenn ci ñun gagné na dès le premier tour wasalaam waaye bu loolu amul bu deuxième tour amee kenn ku ne ci ñun dina jàppale ki nga xam ne moom la yàlla yóbbu au deuxième tour ci baasu nag programme minimal bi nga xam ne moom la ñu tënk pas rek moo ma neex wala waa ji foo mu jóge fi waaye ci base programme boobu lii mooy accord bi nga xam ne accordu yeewi askan wi la dinañ ko publier askan wi yëpp gis ko mu des nag intercoalition yeewi ak wàllu lan moo ñu tënk yeewi ak wàllu xam ngeen ni bës bi ñu waroon déposer list yi ci boppam dimanche boobu suma ma juumul le 7 mai bés boobu ci midi la ñu jot a am accord na waxtaan bi guddoon na xawoon naa jafe waaye négociation politique moo ni demee ba ñu waxtaanee la ñu déggoo ni loolu la ñuy tënk mooy ñaari coalition yi dañuy ànd. présenter liste unique ci département Sénégal muy diaspora liste unique moy département bo jël rek ci coalition yi moy porter liste bi waye ci liste bi ñaari candidats présenter bi dina bu bi bu askan budé moko jité budé ba benn dina waaye nag coalition bu nekk dina am sañ-sañu moom présenter list nationale am bu bokkul ak list nationale beneen coalition ba loolu mooy lu ñu tënkoon également ci li ñu àndal waaye dañu ne li may wax dafa am solo ñaari coalition yi li ñu jël ci engagement mooy benn kenn ku ne dinga nga respecter bi nga wax ak ñi ka ca des

dañuy créer benn groupe parlementaire boo xam ne bu dee yàlla may nañu majorité li may wax dafa am solo de parce que ñëpp xam nañ ni assemblée balaa nga fay mën a def li nga bëgg a def dëgg nga yor majorité fi mu ne nii nag amaguñ ko ñàkkaguñ ko foofu laa ci yem kenn amagul majorité assemblée bu soobee yàlla le 14 septembre. ñu xam ku am majorité ak ko ñàkk waaye lu wéer ba wóor mooy majorité kenn du ko am Sénégal ndax majorité benn député du majorité on ne gouverne un pays ne peut pas l'équilibre d'un pays équilibre réew mënul tënku ci benn nit benn député moo tax ak fu ñu munti jaar suñu amoon majorité de dix députés sax amuñu majorité waxuma laa benn député kon ñu ne bu dee am nañu majorité benn groupe parlementaire boobu ñuy def bu dee am nañu majorité wax ji dama bëgg mu leer de bu dee am nañu majorité loolu tubaab day wax condition la woon benn groupe parlementaire bi ñu bëgg a def dina am ay réformes yu ama am solo yoo xam ne dina ko def ci baasu euh, programme minimal commun de législature mooy li ñu tënk ñun ci ay loi ñu bëgg a voté waaye ñu ñu tënk ñun également ci ay commission d'enquête parlementaire bëgg nañ ko samp coalition yi bu assemblée parce que biir assemblée dañu ne ñaari coalition yi na ngeen ma Sénégal dañu ne ñaari coalition yi jël nañu engagement ni à ne faire aucune compromission législative avec le pouvoir avant et surtout après les élections Donc, il faut de mooy benn ci coalition yi du dem di négocier avec Ngourgi, Moi, je avant mais surtout après bu ñu falee ba noppi Ken du négocier ak groupe parlementaire opposition ferme les dons, pour ne pas dire radical loolu mooy li ñu déggoo woon loolu nag du ci benn fan du ci benn weer waaye durant tout le mandat lay doon loolu la ñu waxante député yi ñu am assemblée nationale moo xam lu wallu am wala lu yeewi am amu ci benn ci ñaari groupe yooyu boo xam ne dina dem di négocier ak Macky Sall loolu accord la boo xam ne mi ngi nii te ñaar ñëpp dañ ko signé te bii dinañ ko rendre public ñu ne bu weesoo loolu nag. kenn ku ne am nga sa sañ-sañ parce que accord bi ñu def accord élection législative la woon point barre foofu la yem bu loolu weesoo nag kenn ku ne nooy tojee sa bopp jënax yow yaa ko xam loolu la ñu waxtaanoon su ngeen gisee ma jël temps pour leeral li dama bëgg askan wi xam lan mooy lu ñu tënk ñun suñu biir yeewi askan wi waaye ñun ak wàllu également élection ñaari élection yi wees na man pour man page boobu tourné na su ma nee tourné nag tekkiwul li duñu liggéey ci li ñu peuple bi jox ci assemblée dinaa ci ñëw bu si kaname nañ ci liggéey lu rëy rëy ndax bu ñuy doon ay benn benn député ci assemblée la ñu liggéey ba askan wi yëpp gis ko tey bu ñu demee ba yàlla may ñu lim ñu may juróom-ñetti fukki député ci biir assemblée xam ngeen ni assemblée nar naa xumb de ñu ngi doog am assemblée nationale nag te ñu ngeen di gis ñu nekk assemblée ñoom màndargal rek waaye ñi ne ci gannaaw laboratoire bi ñi yor liggéey bi di ko liggéey ñoo ëpp téeméeri junni moo tax assemblée bii dinañu xam ni assemblée am nañ ko dinañu xam lan la assemblée di jëriñ moo tax man biñ ci génnee bi ñu waxtaanee suñu biir man dama am position boo xam ne sama position la wala suñu position la ñun Pastef dama ne duma ma seeti kenn du ma woo kenn ken ma négocier kenn ku ne Ousmane Sonko woo na ma di wax ak man ci nu may groupe wala yu mel noonu loolu amul de man yëfu tàppale yooyu bokkuma ci kenn ku ne da ngaa demoon dajeeg askan wi ne man opposant la woteel leen ma ba wi xëy am lu la jox bëri na néew am na lu la askan wi jox ku ci 25000 sénégalais votel ba ku ci 52000 sénégalais votel wala 59000 000. na lu askan wi jox décision boo jël nag yow ak askan woowu la ñun suñu yoon ci te décision bu waay jëlit respecté nañ ko wax ju bëri ji jaru ko lay yu bëri jaru ko kilifa day mat kilifa sañ limi def dem tok jàpp ñàmburam man de Ousmane Sonko nous ma commenter décision politique ou benen leader parce que sama yoon newu ci waaye xam nga Macky Sall ndeysaan président de l'APR defe naa dafa jaaxle ba xamatul fu mu ne ndax looy def boobu ba léegi amoo ci résultat 2012 ba léegi lan la nekkee ku ñu fal maire ci opposition mu recevoir la palais am lu mu yëkkati jox la ne la ñëwal fekk si ma di essayer suruxlu ay député pour récupérer leen di dugg ci parti naan day tas parti di récupérer ay nit waaw bala élection locale yi ñaata nit la récupérer téwul élection locale yi ñu duma ko digënté élection locale ak élection législative législative ñaata nit la récupérer waxuma la rek les hommes politiques waxuma la rek les hommes politiques waye même yenen kilifa ak yenen ñaata nit la récupérer tay la walu gëna ay ndax duma giñ ko duma ci élection législative yi bi Sénégal di Sénégal ba légui musul am kon ku yaakaar ni jël nga benn nit foog ni yóbbu nga ay nit ñu bëri yow benn nit boobu rek nga yóbbu yóbbu juróomi nit yu wër nit kooku moo tax loolu amul solo li am solo mooy dafa am loo xam ne door na moom amul xelu seetlu loolu te loolu gannaaw yàlla dara mënatu ko téye mooy ma nga doore nag du 2019 nit ñi seetluwuñu bu baax mille 2019 nee na 65 pour cent la jóge ñëw 59 pour cent boo xam ne ñëpp xam nañ ni matu ko ñu jógee foofu mu ñëw élection locale ñu ne ah waa ji wàcce na en deçà de 50 génne ay statistiques ñoom ñu génne benn carte Sénégal peinture ko en marron di manipuler Sénégalais yi ñu leen nañ dem ñëw élection législative su ma juumul mi ngi 40 entre 42 et 48 buñ cent bu ñu demee présidentielle bu dee moom. jàll na soo amee 30 pour cent wala 25 pour cent dina ma jaaxal bu soobee yàlla loolu moo am solo moo tax ci loolu lañuy wax fi mu toll nii lañ ci wax lu simple la mooy Pastef ma ngay des ci coalition Yewwi Askan Wi di coalition bu ama am solo boo xam ne dem nañ ba ñi ko séq di ay leader leneen boole ëpp na politique ay relation judd na ci miinante am na ci soppante am na ci jaar nañ ci épreuve yoo xam ne kenn ku nekk natt na moroomam ba am lu mu gis ci moom lu ko doy sëkk coalition googu dépassé na léegi politique ma gëm nag ni Pastef dafa am taxawaay bu mu am ci coalition boobu ma réaffirmer ko ne tey la Pastef gën a bokk ci coalition Yewwi Askan Wi tey lay gën a sonn ci lépp lu yeewi askan wi di def tey la ci gën a liggéey pour ñu gën koo dëgëral ak décision yu mën a ñëw yi nga xam ne day concerner individuellement les acteurs de yewi askan wi ñaareel bi Pastef ci biir yewi askan wi day gën a des ak gën a dëgëral intercoalition yeewi wàllu ndax intercoalition boobu Tay, mooy majorité ci Sénégal majorité électorale majorité politique ouais moi majorité sociologique bu amé lu ko nar a du jóge ci Pastef ndax ñun ay gor lañu ñun ñu ñak ci politique xamni li buñ ko défé ñak waye des ak suñu ngor moo ñu gënal wor am dara motax tax léeg-léeg ne ñi dañ naan ñun duñu ay politiciens li digënté woon ak intercoalition bi dinañ ko respecter ndax biir assemblée nationale amna ay proposition de loi yo xamné ne dinañ ko déposer bokk na ci yooyu mooy nu ñuy ba kenn ku nekk ci sénégalais yi rawatina ñi nga xam ne dañ leen écarté te tegewul fenn mën a delloo siwaat seeni droit civique ba ñu mun a compétir comme tous les sénégalais parce que sénégalais yi ñooy tànn seen président te dinaa ci ñëwaat loolu également bokku na ci projet de loi yi nga xam ne ak commission d'enquête parlementaire yi nga xam ne waxante woon nañ ko sénégalais yi man mi di wax ak yéen ay fan a ngi fan ngi nii maa ngi tëju di ci liggéey mun naa leen ne am na déjà nu mu tuuti tuuti une quinzaine de projets de loi ak au moins sur une vingtaine de thématiques yoo xam ne commission d'enquête parlementaire war na cee taxaw dinaa ci dellu si loolu ci suñu taxawaay lay doon ci biir coalition bi ak intercoalition bi dinañu woote ci fan yi di ñëw en tout cas balaa weer wi di dee bu soobee yàlla ñi ñu fal ñëpp député dem lëloog ñoom ñetti fan wala ñeent wala juróom ci li nga xam ne formation lay doon pour préparer leen en tant que député waaye loolu premier formation rek la parce que day doon lu continue dinañu waxtaan ba tënku ba déggoo nag ci naka lañuy ñuy duggee assemblée nationale ci groupe parlementaire bi wala ci groupe parlementaire yi ak lan moo war doon suñu taxawaay biir assemblée nationale ñu ngi ciy liggéey moo tax ngeen gën ñoo dégg parce que dafa am jamono yoo xam ne jamono liggéey la lépp loo xam ne daal engagement la bu ñu jël ci intercoalition bi ak ci coalition bi dinañ ci taxaw waaye bu loolu weesoo nag. li nga xam suñu programme la ñun parce que nous mbokk yi nañu xam fukki ak juróom ñett moo dox suñu digganteeg élection présidentielle fukki weer ak juróom ñett loolu tuuti na trop moo dañuy aussi ci liggéey boobu ndax it ku nekk senegaal rek xam nga ni bu soobee yàlla ni nga xam ne moom rek ay dogal moom rek mooy dogal léeg-léeg nag nit beew ba fàtte loolu ñu jaay nit ba mu fàtte loolu wala ñu jox ko as daggitu pouvoir nguur mu fàtte loolu waaye yàlla rek mooy dogal moo tax ma ne bu soobee yàlla moom di dogal man mii Ousmane Sonko candidat la ci présidentielle 2024 Inshallah. allah bu ma ci génnee ndogalu yàlla dama naan sama parti parce que dama bokk ci parti boo xam ne dafa am muy règles d'investiture kenn ku ne ci parti bi am sañ-sañ ne candidat la bu boobaa dañuy def primaire waaye li mu jëm ci sama bopp man am naa sañ-sañu wax ni te sénégalais yépp nag defe naa su ma ko waxee sax bettul kenn ci Sénégal amul benn sénégalais boo xam ne mi ngi laam-laame ndax kii dana nekk candidat 2024 am déet ndax it tey jii ci opposition Sénégal ku ci présenté woon élection présidentielle 2019 rek men nu man maa fi nekk opposition ba tey loolu la yàlla dogal ñeneen ñi kenn ki nee na bàyyi na politique ñaar ña dem nañu fa ngeen xam donte ñoo àndoon signé ñun ñëpp ab charte ne duñu reconnaître légitimité président Macky Sall au lendemain bi ñu bi ñu ci élection ba

Vous savez, y a le candidat la ñuy pour élection présidentielle 2024 candidature Bob Nek, dafa am lu mu ànd ak andak mu ànd qui nag dañ ak Sénégalais yi waxtaan militants yi waxtaan sympathisants yi parce que dafa am solo orientation yi ñuy joxe Moi. tektal yi ñuy jox militants yi ak sympathisants yi ak bépp sénégalais boo xam ne dégg nga li ñuy wax gis nga li ñuy xeex te gëm nga ko ndax 2024 tànneef gi ñu war a tànn weesuwul ñaar diggante ndax dañuy bàyyi suñu askan continuer nekk askan woo xam ne dañ koy yor ci lepp alal goo xam ne doo ko dugal fi mu war a dugg ci jaay alalu réew ci jamono ci noot doomu aadama yi ci duma reye ak tëjaate ci yaatal ay programme yoo xam ne dëppoowul ak suñuy gëm-gëm ci biir réew mi ak ci jaay pasar pasare lépp loo xam ne sénégalais waroon ci mun am yaakaar wala mu amal leen njëriñ wala ndax dañuy tànn loo xam ne day lalu ci souveraineté ak patriotisme mooy fexe ba téye suñu réew li nga xam ne yàlla jox nañu ko ci alal te macha allah mu bari loolu ñu teel ko suñu bopp bañ koo bàyyi tubaab yeeg naar yeeg ñeneen ñëw jël ko yóbbu boole kook nag yóbbu sénégalais ci liggéey ndax liggéey mooy defar réew kenn ku ne xam ni sacrifice la jële fi nger ba kenn dootul sa saña saña jël dërëm bu mu moomul ci askanu réew mi waaye dërëm gu ne nag ñu dugal ko fañ ko war a dugal xam lan mooy priorité ñaari modèle yooyu rek moo fi ne ci loolu lañu ñu war a tànnee moo tax rendez-vous boobu ci rendez-vous yi gën a am solo ci histoire Sénégal la bokk buñ ko ratee rek nañu xam ni cinquante ans yi di ñëw wala lu ko ëpp dinañu continuer nekk ci jafe-jafe ak ci toroxtànge ak ci nooteel kenn ku ne di ko jooy fa nga koy jooye te kenn du am saafara moo tax ñuy joxe tegtal dañuy bañ ñu détourner suñuy militants moo tax yow militant bi yow militante bi yow mi di sympathisant ak sympathisante yow mi citoyen boo xam ne milité woo fenn waaye am nga yëg-yëg ndax nag Sénégal wax ñi ne bëri na trop waaye sympathisant yi ñoo ëpp militant yi de ku fi falu rek sympathisant moo la fal ndax ñëpp mënuñu dem jënd carte ci parti politique moo tax ñëpp laa waxal ku fi nekk ku ne jaspora fàttali leen ni rendez-vous bii rendez-vous bu historique la rendez-vous boo xam ne moomaat suñu bopp la te mu dépassé senegal tey muy muy combat boo xam ne combat africain la may félicité di encouragé suñu mbokk Mali président Assimi ak ñi mu àndal wax leen ni. siggil nañ ñu ñu ngi siggil te am nañu suñu jaajëf am nañu suñu encouragement am nañu suñu jàppale ba fu ñu doolee yam tey combat bi ñu ko porté dafa bëri ay homme politique ñi ngi juddu ñi ngi meññ fépp ci Afrique francophone parce que problème bi nag Afrique francophone la gën a am mais foo dem ci Afrique francophone peut-être dimension bi mu am Sénégal amagu fa ay profil lañ ciy meññ muy lu am solo. waaye du rek ci politique jëlal le milieu de l'art am na artistes yu gore Afrique gis nañ taxawaayu Salif Keita gis nañ taxawaayu Alpha Blondy gis nañ taxawaayu Tiken Jah Fakoly Tiken Jah Fakoly gis nañ taxawaayu les le mouvement hip hop africain bu Sénégal gis ngeen taxawaayam gis nañ yeneen artistes yoo xam ne. ñoom ñëpp tey dugg nañ ci mouvement bi xam nañ fi ñu jëm ñu ne nii jaajëfal ñoom ñëpp ndax loolu lañuy xaar ci leader d'opinion mooy xam fu sa intérêt réew nekk nga ñeme ko ndax ragal féete nag du ma ne day xañ wërsëg de waaye dama naan yenn saay dafa xaw bokk tuuti ci naafeq koo gis rek am na fu mu féete da koo fësal wala fësalu ko ndax tënku sa bopp toog ne man sama yoon newu ci ci ñàkk ci ci ci ci féete la bokk ndax ni mu bokkee ci féete mooy foo gis ñaar ñu tongoo am na ku tooñ ka seetaan nag dafa jàppale ka tooñ waaye li ñu sant ñun muy ci diine muy suñu aada boo fekkee ñu tongoo nga gis ku tooñ danga ko naan sëñ bi yaa tooñ daal di téye loxoom moo tax neutralité ay waxu tappale la kon mouvement boobu nga xam ne am na yow militant bi yow sympathisant bi bu la kenn nax bu ñu trompé ci combat combat bi dootul nekk ci réseaux sociaux yi diw saaga na sama leader ma saaga ko diw xas na suñu parti ma xas ko buñ leen yóbbu ci yooyu am na lu ëpp solo loolu maa ngi ciy ñëw buñ leen bu leen tardé ci loolu xaste ak saaga téewul projet bi li tubaab naan dafa mel ni bëgg a téye géej ak say loxo moo tax bàyyi leen ci lool loolu lañu ñu mëne waaye dinaa leen wax ñaar ba ñett yoo xam ne tey ci fukki weer ak juróom-ñett yi ñu jëm moo war a doon yitte kenn ku nekk ci ñun ñu ciy taxaw saa su ne di ci liggéey saa su ne ba ca njëkk mooy defarwaat defarwaat nag mooy defar parti bi ci fii ëllëg ak wala gannaaw ëllëg dina am lu ñuy génne ci ay circulaire ay notes yoo xam ne ci loolu la jëm ñaareel bi mooy préparé wu préparé ndaw ñi surtout fexe ba ñuy war a bindu ñëpp bindu ji fexe ba war a bindu ñëpp bindu ji waaye gannaaw ga ñu fexe ba jël seen carte électeur mooy dugg ci àll bi ci koñ yi ci ruq yi ak ci ruqaan yi fu nekk ngeen taxawal fa ay cellule gis nañ yéen a koy def weekend bu ne ci Sénégal yépp maa ngi gis ngeen ciy liggéey waaye na gën tar parce que loolu mooy liggéey bi loolu bu ngeen ko defee ñu boole ko defaraat suñu ngemb bu baax ci biir partie bi dinañ ci boole it fii nawet gi di jeex gën saa gudd mois de novembre bu soobee yàlla dinaa entamer man dinaa door benn tournée nationale ci biir Sénégal yépp tournée boo xam ne du benn département du ci mucc la ñu jàngat nag ci élection locale yi ak élection législative yi mooy dëkku taax yi mokk na ba noppi dëkku taax yi ñoom mënatuñ fa gañe dara bu ngeen seetloo même département yi nga xam ne ñoom moom la ñu gañe dañoo ñàkk dëkku taax yi Louga dañoo ñàkk Louga commune Mbour dañoo nakk mbuur commune Kaolack dañoo ñàkk Kaolack commune Kolda noonu donc liggéey bi fu mu nekk léegi ñun ñëpp xam nañ ko mooy dugg ci àll bi waxtaan ak suñu mbokk àll bi parce que ñoom lañu continuer di manipuler ci ay mbirum xaalis ak yeneen ak yeneen moo tax tournée bi naam dinaa def tuuti milieu millier urbain yi waaye lu ci ëpp moom àll bi lay doon te dinañ ko def ci yoo xam ne day lalu ci nu tuuti tuuti fukki weer ci juróom fukki weer ak juróom-ñett yi nga xam ne moom la ñuy dëgmal waaye nag mbokk yi lii su ma ko waxee dinaa leen wax nag wax naa leen li ñu war a def waaye su ma ko daaneel dinaa leen wax nag li nga xam ne mooy ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy fexe subaak ngoon guddeeg bëccëg pour essayer dal suñu kaw ak pour essayer bloquer yak projet bi nga xam ñu ngi ci liggéey boobu ba léegi yàlla def ci lim ciy def ndax su ngeen fàttalikoo bi ñuy door kenn xamuñu ci Sénégal ba daj 2017 ba ñuy campagne dañ doon wër ci marché di jeex nit ñi pour essayer am quelques personnes ñuy waxal 2019 gis ngeen li xew 2022 nag moom tabar fa la projet boobu nag lañu bëgg a ba gàkkal ko ña ko bëgg nag ñaar ñii la nguuru Macky Sall la ak nguur gu ñuy wax France nguuru Macky Sall ak nguur gu ñuy wax France ñoo ne Sénégal de ñépp mën nañ fi falu ba mu des Ousmane Sonko ndax fu mu bëgg a jëmee jëmale senegal baaxul ci ñun bu dee nguuru Macky Sall nag lañu ragal ñëpp xam nañ ko ndax ku ñu jox réew jamono lu mat fukki euh, fukki fan ak fukki at ak ñaar nga liggéey fa li nga fi liggéey ci naka sudul noonu boo tëddee doo nelaw te yaakaar nga ni boo fi jógee musiba dal la moo tax toujours lañuy ñuy bëgg woon ñoom mooy ñoom seen fulla gi ñuy wone ci ñàkk nekk ci dëgg moo ëpp doole fulla gi ñu war a wane ñun ci nekk dëgg gi ñu nekk dëgg xam ndax sénégalais dégg nañ li ma wax ñëpp xam nañ ñi nekkuñu ci dëgg yoruñu réew mi ci dëgg alalu réew mi randal nañ ko lii jaay nañ ko tubaab yeeg ñeneen ak ñeneen tëj nañu ay nit ci loo xam ne du yoon duma nañu ay nit ci loo xam ne du yoon rey nañu ay nit loo xam ne du yoon kon loolu lan moo gën a garaaw ci ñàkk nekk ci dëgg waaye malgré tout moom bëgg nañu gëmloo ni moo ñu ëpp fulla ñun gëm nañu ñoo nekk ci dëgg ci yéene gu ñu am ci réew mi ci jàmm gi ñuy dawal ci réew mi ci bëgg-bëgg gi ñu am ci réew mi ak ci afrig dama ne bu dee loolu am na ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp moo tax pexe yi bari na weer yi di ñëw kenn ku nekk na fagaru waajal boppam takku ndax ña ngay pexe ci wàllu terrorisme wàllu terrorisme fabriqué nañu seeni dossier yu leen neex jàpp ay nit barki démb rek kenn ci ñi ñu jàpp naan dañ leen di tuddee xawma ma lan spécial woote na de la prison ne fi mu ne nii bés bu ne dinañ ñëw def leen pression ne leen changer leen seen déclaration wax leen rek ni Ousmane Sonko moo ne suñu gannaaw moo ñu yónni moo ñu defloo moo ñu transféré xaalis bi bu ko defee ñu yóbbu leen ci procureur ou arrangement démb rek tey wax naa ci avocat yi ma wax sénégalais yi nii ndem si yàlla François Mancabou la tax ñu torturer ko ba bakkanam jaar fa li may wax nii ay ñi ko jege nous ma ne moom moo ko wax ñu ko ci ay il faut nga signer PV boo xam da ngay wax ni Ousmane Sonko que sooy dem Casamance d'ailleurs moom ngay dem pour que en tant que expert yaa doon organiser moo tax daaw bi ñu buggee ñu amoon yow Momo nga xam ne ci samay garde port la di ko jox ay instructions parce que yow xam nga suñuy technique mu lànk ne leen lii duma ko mës a signé parce que musuma gis Ousmane Sonko lu dul ci télé xaw ma ko musuma wax ak moom ci téléphone te man homme d'honneur la ci deret ak ci formation kon duma ko signé looloo andi toroxal yi ñu ko toroxal ba bakkanam rot ci may seere ci kanamu famiyam ne ñoom ñëpp war nañoo am fierté ci nit ku mel noonu yàlla métier xam ne ni musuma gis François Mancabou waaye ñaanoon naa yàlla mu daj dajale ma xamle ma ak nit ñu mel noonu parce que réew néew na léegi ci Sénégal ña ngay fenk dossier terrorisme bis bu ne ñu jàpp benn nit yokk ci ña ngay fenk dossier rébellion déggoon ngeen fi Ousmane al naka jaata alkusin jaata kabiliñ ñu dem jël ko ne kooku it ñoo ngi koy togg pour fexe ba avoué ko ay mbir ne ko waxal ni yow am nga ay lien ak Ousmane sunk ña ngay fenk dossier 94 milliards ndax ñoom avocat yi ñu dem di di saisir sax ay ay français ak yooyu xamuñu ni man yéeg naa ko dossier 94 milliards dossier SIF. dem nañ ba xam Ben avocat bu mat avocat Sénégal du dugg siifu ñàkk fayda ñu dem di avocat France te consulat bi ci boppam kuy liggéey ci consulat bi moom mooy porter loolu ci dossier yoo ne nañ c'est des privé. privés ña ngay waajal loolu également façon dossier bu ne ñu ngi koy waajal nee nañu xañ nañu léegi Ousmane Sonko immunité parlementaire donc saa su génnee di wax dañoo am seen benn laboratoire boo xam ne kàddu gune ñu ngi koy saytu pour ban kàddu la ñu mën a wëlbati dem tribunal pour am diffusion de fausse nouvelle wala diffamation parce que xam ngeen lan moo yitte bi du jàpp Ousmane Sonko tëj ko kaso de ndax Ousmane Sonko biir kaso moo gën a nekk xal nag Ousmane Sonko ci biti du loolu mooy seen problème un problème moy nu fexé fexe ba am condamnation même sous des au sursis pour que Ousmane Sonko dootul nek candidat en 2024 motax mané ne kenn ku nek ci militants yi ak militante yi na fagaru waajal boppam parce que Macky Sall waru ñu ëpp fulle bu loolu amé rek moy li ñuy ci souveraineté bi ñu bëgg ñun indépendance véritable bi ñu bëgg ci suñu réew moomaat suñu bop bi ñu bëgg kon loolu du dëgg ci ñun li muy def yëpp nag mu ngi ko lal ci ñett ba ñeent mu ngi ko lal ci police wala ñiy commandé police mu ngi ko lal ci gendarmerie wala ñiy commandé gendarmerie mu ngi ko lal ci benn groupe magistrat boo xam ne ñëpp xam nañ leen waaye mi ngi ko lal ci benn parti média bi nga xam ne saa su ne ñu xëy jox leen ne leen bind leen lu bon ci Ousmane Sonko saa su ne ñu def gros titre bind lu bon waaye c'est peine perdue ndax koo xam ne yaa ngi koy fexeel boobu ba léegi tuumal nga ko lu ne yàq nga deram te su génnoon léegi ci taxaw ci trottoir bi meeting am fii nga war a xam ni sa pexe na na sax na waaye buñ leen xeeb ci seen i pexe rawatina nag bu ci France duggee gis nga suñu toogee Sénégal bay wax naan France kii la bëgg comme candidat kii bëgg ko comme candidat rek wane na ñun lol doko vous gis ci pays yi nga xamné Angleterre mo len coloniser won amul Nigeria, amul Ghana amul fenen suñu démé ba journaux français nous nga xamné porte-voix de la politique France africaine ay le monde diplomatique RFI France 24 ñom ñep au Sénégal nan dañuy dem ci ben affaire privé di interviewer wala def ay article nan la France ne veut pas de Ousmane Sonko etc. cetera veut pousser Maciver vers ceci nangam nangam ça veut dire que nous duñu est-ce que France bu élection am na sénégalais bu am sañ-sañu Sénégal est-ce que président Sénégal sañ na sax man diw bëgg mu nekk euh, président de la République en France lan moo ñun ñu ñàkk fayda personnalité ba tey ñuy patam-patamee suba ngoon loolu mooy laaj bi dem nañ sax bañ ne dernier article bi ñu nee Poutine gagnerait à se rapprocher de Sonko ma feddali benn mbir gis ngeen ñun ñi amul ben ben ben ben puissance étrangère bu nekk suñu gannaaw amul ben ben réew étranger bu ñu amal relation Ben président en exercice bi moo waxal directement président africain bii la muy Guinée awma ben lien muy ñaari Guinée

kuma ma mën a dajal dinaa dajeeg moom man duma ku ñuy orienté wala ku ñuy wax kooy waxal ak koo dul waxal je suis un homme libre indépendant dans un pays supposé libre et indépendant ba tax ñuy wax militants yi ak militantes yi nañu xam ni lii lépp lu muy gën a firndeel mooy candidat France ñëpp xam nañ ko ñi fi France teg xam nañ leen lañu liggéeyal France xam nañ ko ñun nag duñu candidat France tey àdduna du dox ba ñu dem los gombaanu di sukk ci kanamu France àdduna du dox ba ñu sukk ci kanamu benn réew ci àdduna teyit na leer ñun du peuple français la ñu amal problème déedéet biir France am na ay nit ay homme politique ay universitaire ak ñeneen ñoo xam ne discours bii ñuy wax ñun moom la ñuy wax biir France am na jarul ma leen di cité xam ngeen leen am na ci ñoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom suñuy kuréel daje nañu ñi ngi waxtaan kon du problème mu peuple ak peuple parce que yi dañu gaaw ci raccourci mais problème mu régime yi fi nekk ci France politique bi ñuy doxal duñu nangu mu woy fii biir Sénégal moo tax li may daanelee mooy waxaat ko France nañu génn ci suñuy mbir 2019 dama dañu génn ci élection bi ma ne ma ne waa France bu dee am ngeen dégg-dégg di ngeen xam ni li judd biir Afrique caaxanteewu ko xoolaat len sen bop bu ngeen buggee continuer am des relations ak Afrique lu ko may di ngeen génn Afrique ci anam goo xam ne du gën ci yéen dafa mel ni boobu ba léegi France dégguñu moo andi li xew Mali moo andi liy xew jamono ji ci Sénégal moo andi liy xew Tchad mooy andi liy xew Guinée mooy andi liy xew fépp pour xam ne Afrique boo xam ne France moo ko dominé woon lii la bëggoon waxtaan ak mbokk Sénégal wax leen ni désormais nañu xam ne ñi war a liggéey yépp dinañ ko continuer liggéey waaye dañoo def cap ci 2024 te bu soobee yàlla ñaan nañu yàlla te am nañu espoir mooy yaakaar gu rëy ni bu soobee yàlla dinañu gagner élection boobu li may daanelee nag question d'actualité la mooy fan yi yépp ñu ngi wax lu jëm ci hôpital de Dantec Sénégal dafa bindoo noo xam ne bu dara xewee rek kenn ku ne day bëgg nga wax ci jamono ju mu bëggee nga wax donte nekkuñu woon fii sax ñi ngi doon suivre la xew yépp ci hôpital ba li ma ciy wax mooy bu njëkk bi dégg nañu version yu bëree bëri bari ci mbir mi dégg nañ ni gàllankoor yu bari dina dina am ci tëj googu nga xam ne tëj nañ ko ci hôpital bi te waajaluñu ko waajaluñu ñu fay liggéey waaye waajaluñu it ñu fay fajoo loolu moom dafa bokk ci amateurisme ak cuune ak tiit ndax dañoo am ay gouvernants yoo xam ne buñ lañ nee ay milliards a ngi nii rek dañuy tiit wax nañu ci gàllankoor yi muy indi ci ñi nga ñi nga xam ne dañ fa def formation ci médecin yi wax nañu ci li nga xam ne ay patient la yoo xam ne fa lañ doon fajoo xëy-xëy ñu leen mënatoo fi fajoo te waajaluñu leen fa lañu mën a demee faju ji bokk na ci argument bi gouvernement bi doon wax sax dégg naa ñu naan li ëpp ci ñuy fajoo Dantec du waa département dakaar moo waxtaan ak ay médecin ñu ne ma am na étude bu ñu def boo ne ni 60 pour cent ñiy fajoo Dantec waa département de Dakar la kon wax jooju taxawul wax nañu wax nañu wax nañu débat technique bi nak man duma médecin docteur Diallo Diop ngi ni moma gëna xam yu mel nonu té nañ ci délu si buñu paré dajalé liñuy dajalé yépp wayé damay wax ci li nga xamné mo jëm ci droit ci état ak ci administration gis ngeen Sénégal limay ñaan sénégalais def ma leçon de morale à personne waye li ñaan sénégalais moy ñun ñëpp nañuy gor di jang xex lu suñu yon newul suma ma lu suñu yon newul nak moy lo xamné du suñu intérêt personnel immédiat parce que lu bëree bëree bëri ci sénégalais bala ñuy mëna yëngu rek moy lañuy def ci lorangé dal na sen kaw mais tant que dalul sen kaw les mêmes ñoy nek di yuxu di xex ñom gi Marius ñom Ousmane Sonko ñom mais dafa mel ni li ci bari du yëngal Sénégalais yi su ngeen gisee ma wax loolu nag mooy gis ngeen euh, anam yu mel nii dafa yàgg am fii moo tax man bi may nekk député à l'Assemblée nationale dinaa leen liiral benn bataaxal boo xam ne dama ko bindoon tontuwuñ ma ba léegi nag ndax lii ma leen di wan nii yépp ay question écrite yu ma bindoon la may nekk député yéen yi tontu nañ ma ci yéen yi tontooguñ ma ci te fan yi di ñëw dinaa commencé def ay live di delloo askan wi li nekk ci lii lii mi ngi ci pétrole bi lële mi ngi ci phosphate Matam bi leneen ngi ci barrage Affiniam bi lii mi ngi ci usine de fabrique de de farine de poisson yi amul secteur bu ñu bàyyi woon lii lépp ay question écrite la ba ci caaroy 44 amul lu ñu bàyyi loolu moo ne woon suñu taxawaayu député wala bokk na ci ndax li bëri nit ñi 5 minutes de temps d'antenne daan am lañ doon gis bi ma ko dama interpeller gouvernement bi ne ko ah ñun de gis nañ ni am na ay suuf yoo xam état bi moo ko moom suuf yooyu ay bâtiment yu ci nekk na site bi nga

ngeen jël ko jaay ko ay politiciens ci ay prix yoo xam ne kenn xam xamul lu mu doon ngeen jëlaat fu ñuy wax terme sud daaw daaw jéeg gis ngeen bi ñuy xeex fi ñu jël ay père de famille ci biir nawet bi génne leen sànni leen ci biti mi Dias moo leen mujj héberger fii ci benn école bu nekk Mermoz defoon nañ fay conférence de presse ànd ak ñoom xeex xeex bi

te loi dafa ne ab immeuble bu état moom munoo ko louer lu soo koy louer nit délai yi c'est entre dix-huit ans mooy fukki fan fukki at ak juróom ñett ba quatre-vingt-dix-neuf ans ci délai boobu nga ko mën a lu ba ba cinquante ans du moins muy juróom fukki at mais munoo louer nit quatre-vingt-dix-neuf ans

Moy immeuble Brière de l'Isle defe naa ñëpp xam nañ ko fi ñu jël ko jox ko société bi ñuy wax Sénégindia pour 99 ans nga le titre foncier 26 83 DK mi ngi à la rue Carnot nga jël ko jox ko société bu tudd Sénégal Hôtel Invest pour 99 ans nga le titre foncier 54 21 mi ngi rue Clébert nga jël ko jox ko société bi wax Sénégal Global Solution nga jël titre foncier 49 82 jël ko moom tam mi ngi rue Achimoutal angle René Ndiaye nga jox ko société bi wax Fleur Sassou enfin immeuble bi nga xam ne moom la direction de l'élevage nekkoon également Yo yépp Macky Sall ak nguuram jël nañ ko tey la ko jox ko ay nit question écrite baa ngi ni maa ngi ko bind 2020 nous sommes en 2022 j'ai pas encore reçu de réponse du gouvernement du Sénégal waxtaan nañ waxoon nañ ci waxaat ci publiquement te loi li mu wax te foofu moom mo am solo man mënuma dugg ci considération technique yi waaye xam naa ni tëj hôpital moom te waajaloo ko am na ko proverbe bu naan boo tëjee hôpital ubbi nga ay bàmmeel tej hôpital te waajaloo ko mooy ubbi nga ay à côté waye li am solo moy code du domaine de l'État bu 1976 dafa wax lu am solo dafa ne ab terrain bu état bi mom budé à ay tabax yu ci nekk état bi munu ko jaay ludul assemblée nationale mo voté loi déglu len ma bu baax même sous des murs de clôture rek mo ci état bi pour mu jaay ko il faut mu dem assemblée nationale saisir assemblée nationale assemblée nationale voter une loi buy naan autoriser nañu ñu jaay immeuble bi lu ko lu ko mooy rek ñu koo jaay moo tax ñiy joxe te waruñoo joxe ja euh, respecté wuñu yoon dinañ ko layoo ak askanu Sénégal devant la justice waaye ñi jënd ci anam boo xam ne respecté yoon nañu xam ni ñu ngi jënd jaan ci pax ndax dinañu xool déjà lan la ñu mën a def dans le cadre de l'Assemblée nationale suñu juriste yi nañ ci liggéey waaye gën saa gudd 2024 kuñ fi joxoon lu askan bi moom te jaarul fi mu war a jaar boo fa tabaxoon gratte-ciel tamit dañ koy nangu dama bëgg mu leer nañ nañu dégg bu baax ku ñu fi jox ci ay njuuj njaaj loo xam ne jaarul fi mu war a jaar te askanu Sénégal moom ko ak loo fa munti investir bu ñu jëlee réew mi dinañ ko delloo si ci ci askanu Sénégal parce que tappale gi dafa war a jeex ci loolu laa bëggoon daanelee di gërëm ñëpp ci déglu bi di leen sant dinañu tënk lépp ci nasaraan euh, euh, dinañu tënk ci nasaraan euh, li nga xam ne mom olof chers compatriotes sénégalais chers compatriotes africains nous réjouissons de pouvoir euh, vous retrouver euh, dans le cadre de ce point de presse qui doit nous permettre d'aborder un certain nombre de thématiques vous savez très bien que c'est le premier point de presse que nous animons depuis pas mal de temps. L'essentiel de nos sorties médiatiques se faisait dans le cadre de la coalition Yewi Askanui et quelques rares fois dans le cadre de l'intercoalition Yewi Askanui Wallou Sénégal. Nous faisons ce point de presse évidemment que nous considérons important pour orienter ou réorienter un certain nombre de nos priorités et les partager avec euh, nos militants, nos sympathisants de tous bords, le peuple sénégalais, mais également tous ceux qui, à travers l'Afrique, suivent, s'intéressent à ce que nous faisons et encouragent tous les jours. Nous sommes sortis des élections, d'une série d'élections d'ailleurs, élections locales suivies des élections législatives, qui ont consacré plus qu'une percée de l'opposition, une nette victoire de l'opposition malgré les fraudes, malgré les bourrages d'urnes, malgré les manœuvres de l'administration en charge de l'élection et du Conseil constitutionnel pour éliminer des listes, Malgré tout cela, il est unanimement reconnu que l'opposition a nettement et largement gagné ces deux élections. Nous en rendons grâce à Dieu et nous remercions le peuple sénégalais pour cette confiance placée à notre action. Mais il faut savoir avancer, avancer dans les deux sens. S'il s'agit d'élections stricto sensu, on a fermé la double page électorale des locales et des législatives. Évidemment, il nous faut gérer les conséquences de ces élections. Mais s'il faut parler d'élections sensu, il nous faut nous orienter désormais vers l'étape cruciale, extrêmement importante, de l'élection présidentielle de février 2024. Il faut gérer, c'est vrai, les conséquences des élections passées. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer le réseau des élus locaux de l'opposition, le REL, qui frère sa voix en dehors de l'Association des maires du Sénégal, qui est une succursale de Macky Sall. Nous allons, dans les tout prochains jours, mettre en place ce réseau. Nous sommes juste en train de terminer les derniers réglages. Mais également, nous allons organiser des séances, en principe à partir du 25 à venir, des séances de formation et de concertation avec l'ensemble de nos députés pour les préparer à aborder euh, la législature à venir. Nous avons beaucoup travaillé à identifier énormément de projets de loi dans tous les segments, dans tous les domaines qui seront déposés sur la table de l'Assemblée nationale dès que l'Assemblée sera installée, compte tenu de la session budgétaire qui va démarrer immédiatement après l'installation de l'Assemblée d'ailleurs. Nous avons également identifié un certain nombre de scandales sur lesquels il faudra impérativement exiger la mise en place de commissions d'enquête parlementaire Personnellement, j'ai beaucoup travaillé lors des cinq années passées en tant que député. Tout ce que vous voyez, c'est des questions écrites au gouvernement sur toutes les thématiques. On a tantôt parlé, en tout cas ces derniers temps, du, scandale de la Poste. J'ai ici la lettre, la question écrite que j'avais adressée au gouvernement et les réponses, très insuffisantes d'ailleurs, qui m'ont été adressées. Nous voulons que nos députés continuent ce travail, l'améliorent et nous serons là pour travailler tous les jours avec eux pour que les Sénégalais sachent enfin à quoi peut servir une Assemblée nationale. C'est l'engagement que nous avions pris lorsque nous sillonnions le Sénégal pour faire campagne. Et cet engagement, nous allons le tenir, s'il plaît à Dieu. Nous sommes sortis de ces élections avec le constat d'une fraude massive pour arriver à une majorité à un député, c'est-à-dire une non-majorité, parce qu'une majorité un pays ne peut pas fonder son équilibre sur un député. C'est illusoire, c'est de l'utopie. Même une majorité de 10 députés n'est pas une majorité. Donc, cette Assemblée nationale sera l'Assemblée nationale, même si elle promet d'être probablement assez courte, mais elle promet d'être l'Assemblée nationale la plus intéressante que les Sénégalais auront à vivre. Elle sera une vraie Assemblée nationale, nous vous le promettons. Nous sommes sortis de ces élections en prenant la décision de ne pas introduire un recours devant le Conseil constitutionnel. Parce que déposer un recours devant le Conseil constitutionnel, c'est déposer un recours devant Macky Sall, simplement. Il n'y a aucune différence. Nous n'allons pas crédibiliser une institution qui s'est mise à la solde du pouvoir exécutif pour euh, charcuter les listes de l'opposition pour décider de qui doit être candidat et qui probablement s'apprête à jouer le rôle de validation d'une hypothétique troisième candidature de Macky Sall. Et nous avons considéré que cette page, elle est tournée. Nous allons en gérer les gains, comme je l'ai dit, mais il faut résolument s'orienter vers l'avenir. Et l'avenir, c'est les 18 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle de février 2024. J'ai tantôt rappelé en Olof que nous sommes membres de la coalition Yehu Askanu. Nous réaffirmons notre ancrage à cette coalition Yehu Askanu. J'ai rappelé ce qui nous lie à cette coalition Yehu Askanu. Je n'ai pas besoin de reprendre tous ces points puisque le document sera publié. J'ai rappelé également que nous sommes membres de l'intercoalition Yewi Wallou qui est majoritaire sociologiquement, politiquement et électoralement dans ce pays. Et nous continuerons à être un membre très actif et fidèle aux engagements que nous avons pris. J'ai rappelé tantôt les engagements que nous avons pris. En quoi ces engagements nous lient et quelles sont les plages de liberté laissées à chacun des membres de cette coalition par rapport à la définition de ces stratégies et aux options à faire euh, sur le plan politique. Mais nous ouvrons une nouvelle page qui n'a jamais été fermée en réalité, mais qui va prendre le dessus sur toutes les autres, c'est-à-dire, je le rappelle encore, les 18 mois qui nous séparent du départ de Macky Sall de la présidence de la République du Sénégal. Chers compatriotes, Chers amis africains, je veux vous dire que ces 18 mois ne seront pas de tout repos. Ces 18 mois seront extrêmement chargés. Ces 18 mois devront déterminer si l'on est capable de porter le projet que nous avons présenté aux Sénégalais et aux Africains jusqu'à son terme, ou si nous allons subir la même manière que nos devanciers ont pu subir et Oumyebe, et Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, et j'en passe, et j'en passe. Nous sommes à cette étape fatidique d'un projet panafricain, d'un projet souverainiste que nous assumons sans complexe. En face, nous aurons une adversité et une inimité qui atteindra un niveau jamais égalé, qui a déjà dépassé tout ce qu'on a connu dans ce pays mais qui atteindra dans les prochaines semaines, les prochains mois, un niveau jamais égalé. Et c'est pourquoi j'ai voulu parler aux militants, aux sympathisants, à tous ceux qui sont épris de justice, de démocratie, mais de changement fondamental, qualitatif, de changement euh, structurel, adossé ou basé sur l'impérieuse nécessité de recouvrer notre souveraineté absolue, notre indépendance réelle à tous ceux qui sont épris de ces valeurs, de ces objectifs. Nous lançons un appel et nous présentons une feuille de route. Cette feuille de route, elle est importante parce qu'elle se dessine par rapport à cet objectif. Elle doit commencer par un postulat. Plus qu'un postulat, par l'affirmation d'un principe. Ce principe, c'est que moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu, et si mon parti le veut, parce que nous avons des règles d'investiture au sein du parti, je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Je crois n'avoir pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature. De tous ceux qui avaient participé à l'élection présidentielle de 2024 en tant qu'opposant, de 2019 en tant que candidat de l'opposition, des quatre candidats de l'opposition, je suis le seul à être encore opposant au régime de Macky Sall. Vous savez ce qu'il est advenu des deux autres qui ont préféré rejoindre euh, le mangeoire, alors qu'ils avaient, avec nous, signé un document au lendemain de l'élection pour réfuter toute légitimité de Macky Sall. Le troisième a préféré déclarer abandonner définitivement la politique. Je n'ai pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature parce que tous les Sénégalais qui suivent avec nous, qui sillonnent le pays avec nous, savent la relation que nous avons avec le peuple sénégalais, une très grande partie du peuple sénégalais. Faites de confiance, faites d'affection, faites surtout d'espoir, non pas par rapport à notre personne, qui n'est pas importante, mais par rapport au projet que nous portons avec un parti politique, avec des alliés, avec des sympathisants, mais avec même au niveau international énormément d'initiatives similaires. Nous n'avons pas besoin de démontrer cette candidature parce que simplement, c'est le contraire qui aurait étonné tous les Sénégalais. Et par rapport à cette candidature, la feuille de route, elle est très simple. Je veux dire aux militants et aux militantes, et singulièrement à ceux qui s'agitent souvent sur le terrain ou dans les réseaux sociaux d'orienter tous leurs efforts, de consacrer toute leur énergie à travailler sur le terrain, à enrôler les jeunes primo-votants pour qu'ils aillent massivement s'inscrire sur les listes électorales, à implanter des cellules partout dans le pays, dans les moindres recoins, tous les quartiers, les villages, les hameaux, les bourgs, d'implanter le parti dans toutes les parcelles du territoire national, ce qui est déjà le cas, mais il faut renforcer la massification. Je leur demanderai de se mettre à la hauteur des enjeux. Il nous faut beaucoup de maturité, beaucoup de responsabilité. Que Macky Sall ait, qu'on lui ait servi du fognon au Mali ou pas n'est pas un débat pour nous. Ce n'est pas important. Que tel ait insulté Sonko ou tel est diffamé Sonko n'est pas important. Restons focus sur le projet et sur, les étapes à franchir pour, pour pouvoir appliquer ce projet et montrer aux Sénégalais qu'on peut gérer autrement et avoir des résultats. Et pour cela, c'est le travail de terrain d'abord. C'est la sensibilisation. C'est la formation tous les jours. Et c'est cela qu'on attend des militants et des militants de ce parti c'est renforcer l'appareil électoral, la machine électorale. Nous donner tous les moyens d'être présents un peu partout. Parce que vous savez bien que ce qui s'est passé dans le Fouta, c'est parce qu'on n'a pas pu être présent dans les bureaux de vote, dans la majorité des bureaux de vote, parce que nos représentants ont été soit menacés, soit euh, corrompus. Et quand il n'y a pas de représentants de l'opposition, bonjour les dégâts. Je peux vous dire que ce qui s'est passé dans le Fouta ne se passera plus. Que nous avons pris nous sommes en train de prendre toutes les dispositions et ça ne se passera plus, Inch'Allah. C'est ça le travail que nous attendons de vous. Et non pas des débats stériles, puérils du matin au soir sur des insultes, des attaques contre-attaques. Ce n'est pas ça que nous attendons. Notre projet vaut plus et mieux que ça. Notre projet est un projet, j'allais dire, spirituel même. Il faut que les gens le comprennent comme ça. Nous ne faisons pas de, la politique pour des positionnements ou pour de l'argent qu'on doit avoir. Nous faisons de la politique par conviction. Et parce que, en tant que croyant, musulman, catholique, euh, euh, religion traditionnelle, nous sommes convaincus que se mettre, se mettre au service de sa société, se battre pour sa société, se faire insulter pour sa société, se faire emprisonner pour sa société, se faire tuer pour sa société, est un acte d'adoration au même titre que la prière, le jeûne et tout autre acte d'adoration. C'est de cela qu'il est question. Il ne faut pas qu'on vous induise à abandonner, à lâcher la proie pour l'ombre. Les petits débats, vous savez leur technique, chaque jour ils allument des contre-feux. Chaque jour on, sort de faux dossiers et les gens sont là à épiloguer. Sortez de ce terrain et restez focus sur le projet pour 2024. Et au-delà du travail de terrain auquel nous vous, nous vous appelons, il y a également un travail de vigilance. Parce que ma conviction, elle est nette, que personne n'est mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024. Je ne suis pas un utopiste, je ne suis pas un nombriliste, je suis quelqu'un de très posé sur ces questions. En 2019, quand les gens sont venus me voir pour me dire qu'on va gagner, je leur ai dit que c'est possible. Parce que euh, comme on dit, les desseins de Dieu sont insondables. Mais si je m'en fie simplement aux aspects factuels et pratiques, je crois qu'il nous faut nous fixer comme objectif de bien figurer, de marquer notre terrain, de montrer que nous sommes une force sur laquelle il faut compter, plus que de penser qu'on va gagner cette élection. Autant j'étais très euh, prudent pour 2019, autant je le dis aujourd'hui. Et je le dis avec toute l'objectivité du monde, il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024, s'il plaît à Dieu. Et c'est pourquoi il faut qu'on reste focus. Et c'est parce qu'ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Quand je dis il, il faut comprendre qu'il s'agit de Macky Sall et son régime, mais il faut comprendre également que c'est la France. Ils sont décidés. Mais le plus important, quand vous lisez la prolifération d'articles de médias français, de porte-voix officieux de l'Élysée, la première chose qu'il faut noter, c'est que tous conviennent maintenant qu'Ousmane Sonko peut être est, potentiellement le prochain président de la République. Ce qui faisait ricaner il y a quelques mois en arrière. C'est le fruit de votre travail à vous, les militants et les militantes, à vous, les sympathisants, à tous les Sénégalais qui nous font confiance. Ce n'est pas le fruit du travail d'Ousmane Sonko. Et c'est pourquoi vous ne devez pas accepter de faire tout ce travail pour rattraper ce qu'on avait perdu, pour effacer les, les rendez-vous manqués. Et qu'au dernier moment, la France et Macky Sall et son régime décident par des moyens non orthodoxes, par des armes non conventionnelles, de liquider ce projet. Et je puis vous assurer que tous les jours que Dieu fait, leur laboratoire tourne à plein régime en fabriquant énormément de complots et de projets de complots. En arrêtant Ousmane Diagne et Papito, ce qu'ils recherchaient, c'est d'intimider. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire un travail formidable. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas un millionième de ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Mais je vois le travail que vous êtes en train de faire, qui est salutaire et on vous remercie. Et pourquoi ils vous craignent C'est parce que eux, ils ont leur presse. Vous, vous avez les réseaux sociaux, beaucoup plus puissants aujourd'hui que la presse. Ils peuvent continuer à soudoyer quelques patrons de presse, leur faire sortir n'importe quelle euh, bassesse contre nous, mais ils n'auront jamais la force des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils ont pris Ousmane Diagne, un père de famille, un brillant intellectuel qui n'a rien fait, pas plutôt, pour des questions d'humour. Et sans que, paraît-il, d'après les avocats, des plaintes aient été déposées par euh, soi-disant les quotidiens concernés, le procureur se constitue, lui, partie civile dans une question comme ça, pour arrêter des gens. Ne vous y trompez pas, il pense pouvoir vous intimider. Ils pensent pouvoir frapper un coup de sorte que vous aurez peur de le faire, mais ils n'ont rien compris. Et ce travail va continuer et la mafia Kachikach va même bientôt sortir en quotidien, tous les jours, en quotidien. En prenant un groupe qu'ils appellent euh, farce spéciale, leur objectif, c'est de mettre la pression sur ces jeunes. Pas plus tard qu'hier, un des détenus a appelé euh, mon chef de protocole. Et la semaine passée, c'était un autre détenu qui a appelé Sérin Cheikh Ndjorombake de Touba pour dire que tous les jours, les gens viennent leur mettre la pression pour leur dire de changer leur version et d'avouer leur lien avec moi, Ousmane Sonko, qui serait derrière, qui leur aurait donné de l'argent, qui aurait financé des activités subversives, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les jours, ils sont dans cette logique de fabrication de preuves, de mensonges pour pouvoir atteindre Ousmane Sonko. Le cas de François Mankabou. Je tiens d'un de ses proches conseillers qui lui a révélé avant sa mort les raisons qui ont conduit à sa, torture et à sa liquidation, son assassinat tout simplement. Parce qu'ils ont voulu le, le contraindre à signer un procès verbal par lequel il reconnaissait avoir des liens avec moi qu'il serait le cerveau de ma sécurité, en tant qu'ancien commando, bien formé à beaucoup de choses, que lorsqu'il se déplaçait vers le sud du pays en Casamance, c'était pour pouvoir prendre des instructions euh, auprès de moi, et que c'est l'un de mes proches gardes du corps, Momo, qui serait le link entre nous. Et vous comprendrez d'ailleurs bien pourquoi ils ont voulu profiter des malheureux événements de Thiès lors de la campagne pour cueillir Momo, qui est dans leur viseur, sont venus jusqu'à Kolda nous amener une convocation pour Thiès. Malheureusement pour eux, ils nous ont amené Momokan. Moi, je n'ai pas de Momokan dans mon entourage, on a refusé de prendre. Ils sont dans cette entreprise quasi quotidienne. Et quand François Mankabou leur a dit que je ne signerai jamais ce PV, je ne connais M. Sonko ni de près ni de loin, à part le voir de temps en temps à la télé comme la meute des Sénégalais. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais serré la main, je ne lui ai jamais parlé au téléphone mon éducation, mon ethnie et mon honneur de commando ne me permettent pas de faire ça, ils ont commencé à le torturer jusqu'à ce que mort s'en suive. Je n'ai pas connu François Mankabou, mais je regrette de ne pas avoir eu, eu à connaître cet homme d'honneur et de dignité, parce qu'il en manque aujourd'hui dans ce pays des hommes de ce genre. Et je dis à sa famille qu'il y a de quoi être fier de François Mankabou. Et aujourd'hui même, je me rendrai auprès de ses proches pour présenter les condoléances de notre parti, comme je me rendrai auprès des familles de tous les prisonniers politiques de Macky Sall. Je dis que PASTEF a aujourd'hui 17 prisonniers politiques entre les mains de Macky Sall. 17. PASTEF a 19 personnes qui ont été assassinées par Macky Sall et son régime de 2016 à ce jour-ci c'est un, record. Il n'y a aucune formation politique qui est autant subie dans ce pays. Personne n'en parlera. Mais dès que Pastef sera le temps, vous entendrez les bien-pensants de ce pays nous parler de paix, de stabilité, de ceci et de cela. Ce que j'appelle l'hypocrisie, un terme que beaucoup n'aiment pas, mais je l'assume. C'est ça le pays. On est tout le temps assiégé, attaqué, diffamé, tué, emprisonné injustement. Personne n'en parle. Si Macky Sall était à genoux, s'il était dos au mur, vous entendrez des interventions de partout. C'est ça le pays, c'est ça le Sénégal. Mais nous ferons face. Et c'est pour cela que je dis aux militants, par rapport aux machinations de Macky Sall, terrorisme, dossier terrorisme fabriqué par le procureur, dossier de rébellion, Ousmane Diata, fabriqué par le procureur, 94 milliards ils sont allés saisir un cabinet français et j'en ai été informé immédiatement. Et ce qui est cocasse, pour des dossiers supposés privés, c'est les services consulaires eux-mêmes qui, saisissent maintenant des, avocats hors du pays. Parce que simplement, ils savent qu'aucun avocat sérieux, aucun avocat euh, normal dans ce pays ne, va s'engouffer dans des dossiers comme ça de même que le, dossier de viol imaginaire qui n'existe que dans la tête de Macky Sall. Ils se sont tellement mentis qu'ils ont fini par croire à leur mensonge. Et c'est ça qui est dramatique dans le mensonge, justement. Et c'est pourquoi, avec le soutien de la France, parce que quand des organes français s'intéressent d'aussi près à la politique sénégalaise, Jeune Afrique, succursale déguisée de la France, Le Monde, France 24, RFI, tous les jours maintenant, c'est le Sénégal, c'est du Ousmane Sonko à gauche, à droite, dépeint comme un dangereux homme politique qui est contre les intérêts <clears throat> étrangers occidentaux, qui aurait des acquaintances avec des terroristes de je ne sais où, qui veut brûler le pays. Vous voyez le dernier article qui a été publié, on me dit que c'est le, c'est le monde quotidien. Mais il y avait le monde diplomatique qui était venu faire son reportage euh, sur, la supposée affaire de viol. Mais, comme disent aujourd'hui que tous ces organes s'intéressent à ce que nous faisons, le premier constat, c'est que tous, je l'ai dit tantôt, admettent désormais que nous sommes un présidentiable crédible, sérieux et qui a, plus de, qui a des chances de passer. Mais la deuxième chose qui est tout aussi importante, et je l'ai dit et redit. La dernière fois, j'avais dit à la France de lever son coude de notre cou. Ça a trop duré. Des siècles d'esclavage, des décennies de colonisation et des décennies de néocolonisation. Vous ne voyez ça qu'en Afrique dite francophone. Les pays qui ont été colonisés par les anglophones ne vivent pas ce problème-là. Il est temps que cela cesse. La France doit avoir la dignité de l'Allemagne, qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de, l'Europe. Elle doit avoir la dignité de la Norvège, du Danemark, de toutes les autres puissances, euh, pays européens. Elle doit avoir la dignité de, de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies. Si c'est ça, ne pas aimer la France, je ne l'aime pas. Et ce discours n'est pas dirigé contre le peuple français. Il est entendu, écouté, mais il est dit surtout par beaucoup d'acteurs politiques, d'intellectuels, d'universitaires en France. Il est dit par une bonne partie du peuple français. Ce n'est pas un antagonisme entre nous et le peuple français. Il faut qu'on se comprenne bien. Nous avons initié, des contacts très poussés avec une partie de la classe politique française. Nous discutons. À la veille des élections législatives, nos, staffs respectifs se sont rencontrés à Paris, ont discuté, ont sorti des communiqués conjoints. Nous n'avons pas un problème global avec la France. Mais nous tenons et nous défendrons notre souveraineté ce qui est en jeu et qui fait que la France s'agite, au point que dans certaines euh, interventions, euh, on essaie d'établir des liens entre nous et M. Vladimir Poutine. Je tiens à dire que nous n'avons de lien avec aucune puissance étrangère à ce jour. Aucune. Nous n'avons rencontré ou parlé à aucune puissance étrangère à ce jour. Nous ne sommes pas dans cette logique. Dans notre entendement, il n'est pas question de casser une domination pour tomber sur une autre domination. Aujourd'hui, il y a des puissances montantes qui interviennent ici au Sénégal et qui ont des pratiques beaucoup plus nocives que les pratiques françaises, qui viennent nous imposer leurs entreprises, jusqu'à la sous-traitance, qui refusent même que des entreprises sénégalaises sous-traitent, qui ne consomment même pas ce qu'on produit au Sénégal. Tout est importé de chez eux. Ces puissances-là sont beaucoup plus nocives dans la forme de coopération que, la France même. Dans notre entendement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine, parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça, se, ça, ça, ça devenait possible. Comme je, serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer euh, Ramaphosa et tout autre président de la République. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Mais c'est dire simplement que ce système Beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système. On ne l'abandonnera jamais. Parce qu'un système, simplement, la définition la plus simple, c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé, n'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le Tout-Puissant, qui reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères mariens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît, la dignité qui a été professée dans la charte du Manden, celle qui a été professée dans le, la déclaration de Tcherno Suleiman Bal document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Et c'est pourquoi j'appelle les uns et les autres, j'appelle les citoyens, j'appelle les militants et les militantes à être vigilants, à se préparer, parce que le camp d'en face ne lâchera pas. Ils ont fomenté un ensemble de dossiers, parce que leur objectif, ce n'est pas d'emprisonner Ousmane Sonko, parce qu'ils savent qu'Ousmane Sonko, à l'intérieur d'une géole, est beaucoup plus difficile à gérer qu'à l'extérieur. Leur objectif, c'est de trouver une, un motif de condamnation, ne serait-ce qu'au sursis, dans les 18 mois à venir, pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que le peuple l'acceptera Est-ce que vous, militants et militantes, vous l'accepterez Est-ce que vous, frères africains, vous l'accepterez Je ne pense pas que oui. Et c'est pourquoi nous vous demandons de vous tenir prêts à faire face à cette à ces projets de forfaiture. Je terminerai par euh, une question d'actualité. Nous avons beaucoup parlé dernièrement d'un dossier aux conséquences sociales, professionnelles, économiques même incalculables. Il s'agit de la cession partielle de l'hôpital de Dantec et du projet de construire sur une autre partie une nouvelle structure. Nous avons entendu les avis des uns et des autres, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour se limitent à parler de, la nouvelle structure à construire. Le débat entre médecins que j'ai suivi, ça se limite à parler de la nouvelle structure à construire, mais pas des trois hectares au centre-ville qu'il est question de céder à des privés. Le débat technique, nous ne pouvons pas trop épiloguer là-dessus parce que je ne suis pas médecin, je disais tantôt, docteur Diallo Diop est là, et les médecins, il s'y connaissent mieux que moi. Mais j'ai entendu parler des conséquences qu'il y aurait sur la formation des médecins parce que l'essentiel des médecins parachevait leur formation dans ces structures hospitalières. J'ai entendu parler des conséquences sur le personnel, particulièrement les contractuels ou les temporaires qui seront en chômage technique. J'ai entendu parler des conséquences sur les malades, puisque ils n'ont pas ils n'ont pas, mis en place des mesures d'accompagnement pour que ces malades puissent se soigner correctement ailleurs. Nous avons entendu toutes sortes de conséquences. Nous allons continuer à les examiner et avec le mouvement des, des médecins du parti, nous y reviendrons un peu plus amplement. Mais je vais vous parler de l'aspect juridique et administratif. Je dis tantôt que j'appelle le peuple sénégalais à s'intéresser un peu plus à toutes les problématiques et non pas seulement sectoriellement aux problématiques qui impactent les uns ou les autres. Parce que l'impression que nous avons, nous qui nous battons depuis des années, c'est qu'il il y a un mal sénégalais qui consiste à ce que tant que le Sénégalais n'est pas directement et personnellement impacté, il a tendance à suivre les choses de très loin. Et il faut en finir avec ça. Parce que si aujourd'hui, le régime de Macky Sall se livre à ces pratiques aussi facilement, c'est parce qu'il l'a déjà fait et refait et refait. Des gens l'ont dénoncé, mais ça n'a pas eu de suite. Mais si tous les Sénégalais s'étaient levés pour dire attention, non. Ou alors, ça ne me concerne pas directement, mais j'irai marcher, j'irai manifester parce que ce n'est pas bon. Je pense qu'on n'en serait pas là. Aussi bien sur la question de la gestion de nos, de nos ressources naturelles, la question du bradage de notre patrimoine immobilier, de nos terres agricoles, de nos ressources halieutiques. Sur toutes ces questions-là, il faut en faire des questions publiques et que tous les Sénégalais se sentent concernés. Je disais tantôt que, en ce qui me concerne moi-même, lorsqu'il y a eu des opérations similaires, j'avais interpellé le gouvernement d'une question écrite en tant que député à l'Assemblée nationale. Au moment où je vous parle, je n'ai pas eu de réponse, sauf pour le terme sud. Et le terme sud, Finalement, le projet a été abandonné parce qu'on a fait beaucoup de tollés et l'armée a repris le terrain parce qu'il était question de donner à un promoteur immobilier qui devait faire un programme là-bas. Mais pour toutes les autres problématiques que nous avons soulevées, dans cette question écrite par exemple, nous avions soulevé, et elle date de 2020, nous avions soulevé le cas des immeubles cédés. Il y a l'ancienne euh, la gare, gare routière pompier qui a été cédée à des Marocains. Et D'ailleurs, dans la, dans, la, question, je leur avais dit euh, que euh, le projet pour lequel ils avaient cédé, le projet s'appelle Cité de l'émergence. Les délais sont largement dépassés et jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas livré les immeubles. Vous savez, quand on vend à une entreprise marocaine, si vous saviez le prix au mètre carré, auquel on l'a vendu. N'importe quel privé sénégalais aurait pu acheter ça. <coughs> Mais ils l'ont vendu à des Marocains. J'avais soulevé le cas également de, des, immeubles de la CICAP qui sont derrière l'Assemblée nationale qu'ils ont cédé à des politiciens. J'avais parlé euh, des dossiers, des immeubles qu'ils ont donnés en bail amphithéotique de 99 ans. Vous savez, quand vous avez un bail amphithéotique, vous pouvez aller hypothéquer l'immeuble, lever des fonds. N'importe quel d'entre vous, journalistes, on vous donne un bail hypothétique, un euh, amphithéotique sur un immeuble en plein ville. Vous allez dans une banque, vous levez 3 milliards, vous faites ce que vous voulez avec cette, ce truc, parce que vous avez une garantie d'un fossier de 3 milliards. C'est comme ça qu'on enrichit des gens. Et c'est ça la pratique de Macky Sall. Donc, et j'avais soulevé également ces questions-là en le disant, l'immeuble Brière de l'Isle que vous avez donné à Sénéguindia, l'immeuble euh, le titre foncier 2683 rue Carnot que vous avez donné à Sénégal Hôtel Invest, euh, euh, le l'immeuble 5421 que vous avez donné rue Kleber que vous avez donné à Sénégal Global Solutions, ainsi de suite. Et j'avais demandé à ce que nous, on nous édifie. Parce que j'avais rappelé dans la lettre que l'article 42 de la, loi 66 66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'État dispose que lorsqu'il y a du bâti sur un terrain de l'État, ce terrain cet immeuble ne peut être vendu que sur autorisation de l'Assemblée nationale qui doit voter une loi. Et tout ce qui a été fait, il y a un décret. Pour les mises en, les, les baux qui ont été donnés, il y a un décret simplement du président de la République. Alors que en matière immobilière d'État, vous ne pouvez pas donner des baux qui dépassent 50 ans. Ils donnent pour 99 ans. C'est illégal. Et j'avais demandé à ce qu'on me donne disent Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. À aucun moment, l'Assemblée nationale n'a été saisie et n'a voté une loi. J'ai demandé si cette loi existe. Ils n'ont qu'à me la produire. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. J'avais demandé euh, qu'on nous dise euh, quels sont les prix auxquels ces biens ont été cédés. Je n'ai pas eu de réponse. J'avais demandé est-ce que les autres formalités prévues par la loi ont été respectées, notamment la publicité l'adjudication, la conclusion de l'opération de session par le gouverneur et l'établissement de l'acte par le directeur des domaines. Je n'ai pas eu de réponse parce que ça n'a jamais été fait. Et c'est ce qui est repris aujourd'hui avec l'hôpital Le Damtec. Et c'est pourquoi j'ai dit sur ces aspects juridiques et techniques. Nous allons demander d'ailleurs, dès l'installation de l'Assemblée nationale, à ce que nos groupes parlementaires reprennent ce dossier, comme tant d'autres dossiers sur lesquels on, va, on avait fait des questions écrites. La lumière sera faite c'est pourquoi je vous dis que cette Assemblée nationale sera différente. Et pour le cas spécifique de Dante, comme pour tous ces cas, la seule assurance que je peux donner, c'est que tous ceux qui ont vendangé, cédé des immeubles de l'État en violation de la loi répondront devant cette loi le moment venu. On va voir déjà ce qu'on peut faire à partir de l'Assemblée nationale. Mais ce que je peux dire aussi, et je l'adresse aux investisseurs, nous voulons bien que les gens viennent investir. Nous le voulons, mais dans le respect de la loi et des règles établies librement par les Sénégalais à travers l'Assemblée nationale. Toute acquisition qui aura été faite en violation de la loi, même si vous y construisez des, vous, y des gratte-ciel, seront annulées et restituées au peuple sénégalais au plus tard en 2024, s'il plaît à Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment sur ces questions-là, et Dantec en fait partie. Chers euh, amis, nous avons été longs, mais les thèmes abordés étaient également nombreux, et ce genre d'exercice seront de plus en plus rares. Nous vous remercions d'avoir été patients, de nous avoir écoutés, et éventuellement, s'il y a deux ou trois questions, nous sommes prêts à y répondre. Sinon, nous libérons les journalistes. je n'ai pas eu de discussion avec Maître Ablaïwad. Euh, nous ne travaillons pas de personne à personne. Il y a une coalition qui s'appelle Yehui, qui a ses mandataires pour discuter. Il y a une coalition qui s'appelle Wallo, qui a également ses représentants pour discuter. À ce que je sache, ces deux coalitions continuent à se réunir, travaillent ensemble, ont mis en place un comité scientifique qui réfléchit sur les options donc, les spéculations d'une certaine presse ne nous concernent pas. Vous savez, chaque jour, un journaliste s'élèvera pour dire euh, problème entre tel et tel, etc., sur commande d'ailleurs. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, le comité scientifique qui a été mis en place a commencé à travailler pour déterminer comment on va aborder cette Assemblée nationale-là, comment on va réunir tous nos députés pour les séances de formation. Est-ce qu'on peut mettre en place même euh, le réseau des élus locaux, ensemble avec tous les élus des deux coalitions. Jusqu'au mois où je c'est là où j'en suis en termes d'information. Peut-être que vous êtes dans le secret de Dieu et que vous avez plus d'informations que moi. Mon parti le, le décidera si on est allé trop vite en besoin Non, euh, vous savez, n'importe quel membre du parti est libre à cet état, de, à cette étape de dire je suis candidat. Est-ce qu'il sera le candidat définitif Le moment venu, on, on, le tranchera. Donc, déclarer une candidature n'est pas un problème. Euh, ce qui va venir après dépend de Dieu. On peut avoir d'autres solutions plus opérationnelles, on ne sait pas, peut-être même dans le cadre de la coalition. Là où j'en suis, je dis que moi, Ousmane Sonko, je suis candidat et je vais entamer une tournée nationale en tant que telle pour aller sillonner le Sénégal des profondeurs et parler aux Sénégalais. Donc, ce n'est pas antagonique. Mais on vous remercie. Merci de votre attention.